waajal yeesalaat seeni bureau exécutif kuréel bi ëmb waajuru ndongo yi ñu koy woowee INAPES di tabaat ñi leen toogal ci gox goxaani loolu tax ba ñu yeesal seen bureau bi nekk biir Dakar. dañu ñëwoon tey pour euh, fal euh, coordination départementale des parents d'élèves de Dakar comme nañu ko defee ci banqaas yëpp yi nga xam ne moom la ñu am ci gox goxaan yi. Euh, def nañu ay Ziguinchor Fatick Tambacounda ainsi de suite fii la ñu pour installer ko. mu di kuréel bu gën a mag bu ëmb waajuru ndongo yi ci biir Sénégal UNAPES di jànkonteel ay jafe-jafe gannaaw bu ñenn ci seen i ñoñ génne tàbb seen i bureau mu di mbir moo xam ne ni kii ñu fal yees biir Dakar di ñaawlu. moom la engagé mais engagé wul le comité directeur dama yaakaar ne bu fekkee ne président bi il est pour ñu organiser dara y a les vice-présidents qui sont là nañu xam nañu liggéey bi mën nañu liggéey bi bu fekkee vice-présidente man mii vice-présidente ma deuxième demul troisième demul pour mu nekk lu valable daf may xaw a jaaxal. kuréel gi di taxawu ndongo yi. ci biir lekkool yi waaye tamit ci wetu nguur gi. UNAPES ànd ak njaaxare gannaaw bi ñu tëjee université ak jafe-jafe yu lekkool sénégalaise bi di jànkonteel. tegalee ci tuutànke ba jëm kaw. saa yi ñu gisee ne jàng ak njàngale mi mi ngi sooxe ñun déjà rek am nañu inquiétude euh, ki ki nga xam ne nag mën nga à l'université muy sunu yaakaar yaakaaru papa yeeg yaay ñuy ñaan yàlla ñu jàng réussir mën a am lu ñu def suñu toogee jànguñu kooku am inquiétude weesuwul loolu am na nañu inquiétude lool. UNAPES daana amal assemble générale am li ko dalee juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weerum décembre te ñaleen teewal ci gox-goxaan yu nekk biir Sénégal daañu ci teew.